ravi de vous retrouver amis fidèles internautes euh, de Feeling Dakar jaajëfal nañ leen bu baax am mbég ak kontaan àndaat ak yéen ci suñu plateforme digitale muy Facebook Instagram TikTok X ak ñi ñuy safoo di ñu suivre si suñu plateforme digitale bi nga xamante ni moom mooy YouTube tey ñu ñëw ak yéen ñëw ànd ak euh, ki nga xamante mooy sama cameraman di papa ñëw certifié ki nga xamante ne kenn dootu ko présenté euh, li nga xamante ne moom mooy milieu médiatique bi euh, muy Ousmane ñu gën ko xam nag fii si Walfadjri muy animateur di def liggéey bu am solo si li nga xamante ne moom la nekk nekk nag nit ko xamante ne dafa jege trop li nga xamante moom mooy population population bi di euh, wax seen jafe-jafe waaye it di wax lu am solo di wax xalaatam si tolluwaay réew mi moo tax tey ak li jot a xew si réew mi fan yëpp ñu daal di koy fas yéene benn ramassage waxtaan ak moom rek si xel mu sell fas yéene xool naka la ñuy def à ce que li ñu mel ak jëye yi nga xamante ne mi nga am si euh, réewum Sénégal et que bëri na fi commencé commencé na bëri ñu daal di koy xool naka la ñuy indee ay solution rek bu ko defee daal di koy dakkal si nu mu gën a gaawee moo tax euh, noonu laa koy daal di nuyoo euh, di la dalal jàmm Ousmane di la wax euh, naka ngay nuyoo mbokk internet yu lay seetaan. d' abord maa ngi lay nuyu sama doom sama xarit <laughs> sama partenaire <laughs> maa ngi lay bëggee bu baax a baax di bëggee mm-hmm. it le jeune caméraman le mm-hmm. meilleur de sa génération papa mm-hmm. waaw ñu ngi koy ziar bu baax a baax di ko ñaanal moom it di bëggee waa Feeling Dakar di bëggee Sénégal yëpp di leen wax ni ñu ngi nii yaa ngi nii. Mhm. ñu ngi lay dégg mhm. loolu ñaar rek ñu tontu la mais jàpp ne sa sa xol bi sedd na mhm. guy ci yow. waaw ah, macha allah <laughs> sama xol gën na sedd seen ndax yombal nga ñu ko ba mu yomb torop <laughs> ah, jaajëfal bu baax Ngom Taalif mu jàpp si coordination bi tamit moom tamit am na si euh, liggéey bu solo bi nga xamante ne mu ngi koy liggéey jamono ji si Feeling Dakar ñu koy jaajëfal bu baax a baax dañuy ñëw waxtaanee rek euh, li nga xamante ne moom mooy tolluwaay réew mi ñu gis euh, li nga xamante ne mooy insécurité bu am jamono ji si réew mi lii di série de meurtre di am agression yi di gën di bëri euh, benn rek lañ ci gis boo xamante ne tey jii nii euh, la monde entier mu ngi ci wax ndax léegi yamatul lekk Sénégal muy le cas de double meurtre Aziz Dabala ak Waale ñu ci tudd nag ay nit ñi siiw. waaye ci arrêté si tamit kenn si euh, présumé yi nga xamante ne ñoom lañ teg loxo jamono ji kenn tamit nekk si jigéen képp waaye nekk nit ku siiw muy Nabou Leye ñu koy tudd saa su nekk waaye n'empêche hormis ça yeneen série de meurtre mu ngi daal di am si ay xale yu ndaw sax yu am 16 ans tey ñu leen tuumaal rey rey ni euh, nga xamante mooy nit tey jamono ji buñ ñu demee ba toll fi nga xamante ne moom mooy insécurité totale si réew mi sénégalais tiit yenn secteurs yi nga xamante ne nit ñi dañ fa daan nekk surtout période tàngaay di toog ba ay deux heures du matin léegi amatuñu fit boobu koo gis cinq heures timis fu mu jotee ñu tëju tey jii ni yow en tant que porteur de voix tey lan ngay wax si lu ni mel d'autant plus que yow da nga jege li nga xamante ni moom mooy population ñu bëri xamuñu loolu nag. Ah, ah, <laughs> waaw xam nga man moom. Euh, balaa may ñëw ci loolu sax maa ngi mhm. nii bu baax a baax seen PDG Bamba mhm. ak soxnaam si bijou mhm. sama rakk joojee di leen ñaanal jàmm bu baax di nga ne ni Feeling Dakar c'est une télé boo xamante ni àdduna bi yëpp a koy bàyyi dëgg la dëgg la loolu nag boo ko gisee li tax mu gën a bëri senegal mooy réew mi léegi dañoo am cadence yar xam nga yar bu demee tey ba jeex ci réew. Mhm. Euh, maanaam lu bëri bëri bëri dafay mën a am éducation de base. Mhm. éducation de casse léegi la ñu am. Mhm. te euh, dama demoon sama sëñ ba sëñ Cheikh Fall Mbawar Fall mu yëkkati benn kàddu mu ni léegi Sénégal yaratuñu dañuy yefal. xam nga ku yar ak kii yefal du benn. xam nga tey ji parent bi li ko gën a intéressé mooy mu xëy. dem liggéey wut. lu mu jëndee ceeb dëwlin suukar fay location gérer ay mm. doomam ñiy jàng di leen toppatoo léegi loolu la nit ñi gën a tal que jël sa doom di ko yar dëgg la boobu nag léegi amatul ñun autant dañ daan toog di waxtaan léegi kër boo dugg dootoo gis ku ku toog di xool ci kaw mm. ñëpp a ngi sëgg di xool ci suuf lan la mooy lii nga xamante ne tey dafa dem ba dafa jël suñu àdduna yëpp mm-hmm. papa waxtaanu la ak doom doom waxtaanu la papa bu ñu reeree ba pare doom yëpp daw dugg seen biir néeg tëju nga yaakaar ne sa ay doom tëju nañ ñu ngi nelaw mm. fekk génn nañ kër gi ñu ngi ci yeneen mhm. yooyu est-ce que mën na leen jox éducation bu baax mën na leen jox éducation bu bon mhm. tey jii série de meurtres yi am yëpp tey boo ko gisee ñu ñuy jiiñ naan ñoo rey ak rey yëpp manque de yar la manque de éducation parce que le mot jomb nit ku ko koy conjugué foo toll je jomb te jomb il jomb lu jombo il ou elle jomb mhm. tant nit mi ngi koy conjugué si sa bopp yu bëri di koy bañ parce que yow maa ne yow mii ak papa mii ci sama caméraman bi am na yoo xamante ni tey papa dina toog mu ni lii kat buñ ma ci fekkoon sama nijaay wala sama yaay wala sama maam bu ko gisee dina ko metti kon nag lii duma ko def mm. waaye tey jii booy kaay ndeyam bul dem ndey toogal ndey ñëwal ndey kaay yi def ndey lépp la langage boo xamante ni dafa mm. vulgaire doxin bi vulgaire solin bi vulgaire moo tax jëfin yi day vulgaire mm-hmm. volet yi yambaa ji tànjaan euh, li nga xamante ni moom mooy moom mooy lox li nga xamante ni mooy ñaakoy booy yi na ñëpp chaque jour bu waaw dofloo na ñëpp <laughs> kenn ku nekk di ko jël volet yi mooy extase bi moom la booy di jël buñ koy jël dañ naan dur bu ñu buñ bu ñu nee dur dootuñu calculer mm. doxal guddi nga romb ci koñ yi nga gis tey booy yi ñooy toog ci angle bi mm. teg attaaya ay ban heure lañ koy commencé vingt trois heures ban heure la ñuy jeexal quatre heures du matin ku tëdd vingt ku ku toog vingt trois heures ba quatre heures du matin est-ce nga xëy doo xëy léegi nag da ngay ñëw tëdd nelaw yeewu 14 heures quinze heures fekk añ bi pare ñu maanaam ñu ngi lay yefal ba léegi mm-hmm. nga añ toog ñu jox la kaasu ataaya nga naan ngoon gi nga takk sa ay dàll foo dem géej mm-hmm. entraînement jaay doole am nga faatu njaay bu mel ni yow wala noxey boo xamante ne mu ngi si koñ bi guddi nga dem seeti ko yow li nga bëgg yëpp yaa ngi koy am guddi gi nga recommencé waat routine mm-hmm. lay ne léegi nag day dem ba éducation dafay tey nekk cadence si biir réew Sénégal dañu am problème mu éduquer sunu ay doom sunu ay doom la ñu toppatootul talatuñ leen léegi nag dangay gis koo xamante ne day am doomam sax ragal ko. dëgg la am sa doom war ko mën a wax dëgg doo ko wax dëgg da koy ragal. da koy sóoraale man de bugguma mu mere ma ndaxte lii ak lii xale boobu bu màggee bu reewee lu mu def yow yaa ko ko def loo dëgg la waykat ba nee na woon nga am sa doom ni doo ko yar da ngay bañ mu jooy ëllëg dina la jooyloo mm-hmm. te tey jii lii nga xamante ne mi ngi crime yi ñuy am nii mu ci diggante Aziz Dabala ak ki xamante ne mooy Waly coow li bëri na lool jàpp nañ juróom benn góor ak benn jigéen mm-hmm. dama mbir moomu ñooñu nga xamante ni tey ñu jàpp téye leen mandat de dépôt ñii xaar kañ leen di bu buñ ci taqeewul woon duñ leen jàpp. Mm. yow sama doom kenn jàpp la. Mm-hmm. sama caméraman bi papa kenn jàpp ko. kenn xamuñu kii di dox ci mbedd mi kenn jàpp ko. pourquoi kenn jàpp leen parce que ñu si. Mm-hmm. gis nga mbir bu ñu demee ba ñu ciblé la jël la yóbbu la procureur dugal la cave. Mm-hmm. téye la procureur auditionné la ñuy wax ñëpp ñëw ñu yendal la fa téye la ci. kii ci police yi ci gris yi téye la fa téye la fa temps bu yàgg. Mm. bàyyiwaat la waat indiwaat la tribunal ñaari fan ngeen fay ñëw. après ñu jël leen tegleen leen mandat dépôt y a de quoi se poser des problèmes. sénégalais yi nañu am xel xam nga xel lu muy jëriñ. xalaat waaw mm-hmm. mais xel bu demee ba jëriñatul xalaat amatul sens. Mm-hmm. nabu lay fa mu fële mu nekk ne kenn yéenewu ko lii ko dal. Mm. ñu fa nekk nii fa ñu nekk kenn la leen dal mais nag dañoo def. ku def rek dañ naan la yow a. mais présumé lañu wax. waaw mais présumé kenn leerul ñoo def wala deful mais jusqu'à présent joxoñ nañ leen baaraam. Mhm. ku ñu joxoñ baaraam nag génn goo ci tuuma. Mhm, dëgg la ñëpp dañ leen di ñaan ñu génn ci tuuma. dëgg la mais comme dañ leen joxoñ baaraam ni leen a def. c'est normal que ñu bàyyi yoon mu def mbiram. Mhm. mais Sénégal guddi gi internet bi da ngay gis ay inspectrices. ay commissaire ay général ay procureur kenn ku ne di def laaj. waaye yow may ma tuuti may ma tuuti waaye yow euh, Linguère alors melax loo wax muy ne non gis nga keroog ba muy ñëw kii ba muy ñëw na moo leen woo na nabu mu mel ni yow mbir mi ba muy am. yaa doon seetaan ñu ñoo mën a fenn waaye nañ ma baal ci kàddu gi. surtout les gens qui sont au niveau de euh, de l' étranger ñoom ñoo si gën a mën a. am mais dañuy def ay live yoo xamante ni live bu am fit mm. maîtriser wuñu dossier quand il maîtrise benn dossier bu ci dugg di ci xuus. man damay topp internet bi di leen topp ba quatre heures du matin mm-hmm. mais dama naan ñii ñoo am jot mm-hmm. ñii ñoo am temps gis nga réseaux sociaux baax na lool ci la ñuy dund ñun ñëpp ci la ñuy liggéey mais réseaux sociaux dafa am ni si siy woo mais am na ñoo xamante ne ay chasseur de vie lañ mm-hmm. chasseur de papote leen live bi mhm. partagé leen live bi dugg leen ci biir waaye yow jëlal kooku jël ni non jour boobu sax demeewul noonu ndax mook labu lay ñoo àndoon mais dañuy dégg façon version ko ne nga ni waa mais ñii information yi ñuy yore sax kan moo leen koy jox li leen ko yóbbee dogguma la euh, Ousmane li leen hmm? ko yóbbee est-ce que nekkul ne commercialisation bu commencé am si euh, TikTok parce que TikTok léegi day fay koo gis am na compte bêta day bëgg di profiter si benn buzz ngir mën a def ay live ngir mën a jaay bu ko defee weer bu dee mu fayee ko def si poche am mais ñoom ñëpp la ñoom ñëpp mm. TikTok beeg YouTube bi yëpp ba ci mm. miniature yi mm. miniature yi ngay gis da ngay toog a gis benn miniature da <laughs> xam nga bëgg ma yàq ni lii lax <laughs> suñu job la mais nekk na cas boo xamante ni daal cas boo xamante ni sénégalais yi nañ ci teey mm-hmm. te euh, fëkk ngelaw boo xamante ne day ñëw rek fëkk la sénégale bu nekk na koy moytu ci dossier bii mm. ñu bëri ëllëg dinañ toog naan man dama rus wala dama def lii rebondissement yi bëri na démb dañoo toog ba mu guddi gi lañ lay dégg Nabou Leye est libre Nabou Leye est dégg naa ñenn ñi dañ ne Nabou Leye vers une libération ndax amaguñu preuve bu tax mais am na ñu bind ne est libre waaw beneen bi waaw beneen bi ñenn ñe euh, Nabou Leye est libre am ku de point d'interrogation am ku de point simple ni si bëri nag njaax tiit man j' ai j' ai reçu beaucoup d' appels en ni euh, ba xam Nabou Leye dafa libre wala déet mais leen Nabou Leye libre parce que bu libre aussi sénégalais yi war nañoo poser wu question question si suñu justice. Mhm. Nabou Leye kenn yéenewu ko fa mu ne. bu doon suñu sago mu génn mais justice kenn du ko fowee. te sénégalais yi nañu respecté suñu justice bi parce que bu ñu respecté suñu justice bi mm. gis nga Nabou Leye ak ki nekk 100 mètres nii ñu tëj ko mm. ñoo yem mm. dafa am nday am baay kooku am nday am baay yoon moo leen fa téye yoon nag li ko war mooy na def yoon fekkee Nabou Leye taqeewu si yàlla na génn très rapidement fekkee taqee na si naka yoon teg li nga xamante ne mooy yoon kenn yéene wu ko de mais euh, buñ la buñ la fekk ci biir diwtiir nga taq taq rib ci diwtiir bi ñun la yow yaa jege butéelu diwtiir bi nga dafa këpp sama kaw loolu mënul ne Mm-hmm. dafa am loo xamante ni suñu justice bii nañ leen jox confiance. Mm. wóolu leen wóo nit ki nag boo ko yónnee da nga koy wóolu. Mm-hmm. waaye yónni nit ba pare wóoluwoo ko ñii di nekk ay commissaire gauche ay inspecteur droite loolu moom d' accord ma ci. Mm-hmm. dossier bii dossier bu com dossier bu complexe la Aziz Dabala dem na. a jamais kenn dootul gis ab Aziz Dabala. waali dem na à jamais kenn dootul gis waali mhm. dem nañ ci dem boo xamante ni dem bu metti la mhm. parce que lu toll ni doomu aadama nga tiim ko di ko xool mu lay xool nga koy jam ay paaka ba mu ma mhm. fukki paaka ak juróom quinze couteaux nga koy jam nit di rocci muy jam muy rocci dara di ngay jam mais sadik boobu sadik boobu nan la nit mën a sadigee loolu. est-ce que nit ñi kooku noonu sax ànd nag xelam. parce ah, que mooy wàllum euh, euh, drogue bu ñuy utiliser ak ainsi de suite mën na def lu ñu mel. parce que version yi yu ñu jot dégg bëri na mais tey jii nii sénégalais xamuñu lu ñu mën a xam rek mooy bu fekkee loolu noonu lañ ko faatee kooku ànd ak xelam. waaw du ñu bëri ñu ngi koy wax. ñu ngi mm-hmm. naan dañoo drogué wu ñu def loolu bu dee drogue la drogue graaw na. parce que wax dëgg yàlla nit ak ni mu mel. Mm. man ginaar sax boo ma woowee ni ma kaay reyal ma ginaar balaa may ñëw dinaa am problème pour pour pour pour rey ko parce que accident sax man su ma ko fekkee du ma sax bëgg di xool. parce que dafa am yoo xamante ni am nañu ko attan. Mm. am nañu ko attanul moo tax sapeur pompier yi dama leen di faa ndax ñooy gis lu ne. Mm. ak docteur yi ak ñi nga xamante ni ñoo ne ci hôpitaux yi. mais nag dafa am loo xamante ni dafa ñaaw. Mm-hmm. yow nit ku dem ba bay tàkk. Mm-hmm. Aziz Dabala nañ waxante dëgg. dafa téye woon aar bi. Mm. commencé di tàkk. Mm. commencé clip boo gis Aziz Dabala. Mm-hmm. nekk xale mën a fecc am feeling am caaj mën li muy def. Mm-hmm. nga ñëw rey ko nii mu jeex tàkk. yàq carrière am. yàq carrière mu jeex tàkk. yow nga ko xam. bu baax xamoon naa ko bu baax a baax a baax. Mm-hmm. bu baax a baax a baax sax ba ñuy mujj daje maag moom géejawaay lañ daje may dem entraînement mun ma grand nag maa ngi soog a xam lan moo tax boo nekkee Walfadjri di def émission ngay daw daw daw nekk te grand yow da ngay làqatu. Mm. boobu la ñu mujj gisee maak moom. ñu waxtaan côté arrêt Cheikh bi noonu ñu waxtaan. Mm. après ma ma bàyyi mu dem moom man ma continuer waaye moom mu continuer mel ni kuy jëm Pikine. Mm. boobu laa ko mujj gis c'est tout juste ay vers huit heures huit heures et demie jëm neuf mm-hmm. boobu laa ko mujj gis mais booy bu nice la amoon naa numéro statut yi mu daan dugalee dama ko daan gis. Mm-hmm. mais wax dëgg yàlla daawuñu woowante. Mm-hmm. xam nga Sénégal yi aussi nit day gaañu rek. nga commencé bëgg nekk xarit ak moom mhm. naan xam naa ko déedéet maa ngi moom daawuñu woowante daawul yëkkat téléphone am woo ma daaw mu sama téléphone woo ko mais fu ñu dajee dina ne ma sama doomu bàyyee ngoog mhm. parce que moom Abdou man Ba bu ñu mhm. dajee def naan ma nen da ko bandum de sama sama sama doomu bàyyi baa ngoog ba pare nekk booy boo xamante ni il était jovial jovial lay def da lay gis mel ni xam na ne quatre-vingt-dix ans. Mhm. parce que ku baax la woon. Mhm. ba pare jàng art contemporain danse boobu jàng li nga xamante ne mooy fecc mbedd. Mhm. ba pare nag nekk un grand acteur. di jouer di fecc. il était complet ah. xalam demoon na bay neex buum nga dog waaw gars yi naan meew mu wayul tuuru man la déedéet du meew mu wayul meew mu way moo tuuru parce que Aziz meew bu way la woon hmm. dafa toye woon aar bi maîtriser woon aar bi comme ay jamono ni fi Pape Ndiaye meloon ak ñoom Pape Moussa jamono yi jamonoom la hmm. ñu ñëw nag léegi fay nañ ko completement hmm. booy yi fi nekk di danse yëpp ci ginnaaw Aziz lañ doon topp mais tey jii nii Aziz dem na à ah, jamais kenn dootu ko gis. Mhm. yàq nañ avenir am yàq nañ léppam rey nañ ko rey nañ waal yi mu nekk loo xamante ni ba léegi. Mhm. Sénégal ba léegi bàyyeeguñu kaa. Mhm. d' accord bàyyeeguñu kaa mais ba tey ñu ngi si suñu waxtaan ak ki nga xamante ni moom mooy Passemane euh, euh, Ba euh, bu Walfadjri tey. ñu gis ne kat am na clip bu yees bu dem ba gis a génne ki ko fecc di rek Aziz Dabala def si liggéey bi am solo am projet bi nga xamante ne jeexal na ko tàkk waaye fekkeewul njëriñu projet ba mhm. buñ ko mënee waxee noonu ndax def na li ci war lu lépp li nga xamante ne contrat contrat boobu tënkoon na ko matal na ko ba mat sëkk date buñ ko waroon a génnee yi tamit ñu def fixé woon ko ba pare mu génn àdduna si diggante bi Euh, Demba Guissé génnee li nga xamante ne moom mooy clip yom comme prévu euh, def ko li nga xamante ne moom mooy euh, miniature maanaam pour rendre ko hommage sénégalais di ko ŋàññe mm-hmm. ñu gis ci video bi ki nga xamante ne moom mooy waal yi mu génn mm-hmm. àdduna mm-hmm. moom tam mu bokk ci clip bi ñu si bëri bàyyiwuñ ci woon xel parce que figurant la woon yàgg suñ ko luñ ko gis ci vidéo bi mais ñu si bëri dañu jàpp ne deux images la voilà ñu bëri dañoo jàpp ne kat tey jii Demba Guissé ñu bëri ñu ngi koy ndax dafay profité ci buzz bi ngir rek daal di jaay li nga xamante ne moom mooy kilibam ndax nag tube bi tey jii nii euh, si euh, sànq rek ba ma koy xool mu ngi nekk tendance te waxtu bi. soriwul waaw si suba ay huit cent et quelques ah, mille la voilà donc ça veut dire que ne actuellement si suba mu ngi woon deuxième tendance donc ça veut dire que d'ici ce soir dina nekk ten première euh, si tendance yi jii nii est-ce que war nañoo mën a analyser noonu d'autant plus que Demba Guissé ba mu yëgee desem dafa tiit ba mënul wax tey ñu nekkat dafay profité si bës boobu noonu ak yow sa diggante ak Demba Guissé ni nga xamee Demba Guissé ndax xam nañu yow xam nga Demba Guissé xam nga jikkoom mm. ak analyse bi nga xamante ne internet ñu ngi ko koy bu ñu bëri naan tey la ñu bàyyi Demba Guissé waaw Demba Guissé démb nekk nañ maa ngi moom ba minuit et quelque mm. moom a wàcce station Shell bi nekk Soprim mm. parcelle ñoo ñoo àndandoon démb démb yàgg nañ loolu à partir de vingt heures presque ba zéro heure ñoo nekk dem Demba Guissé nekk artiste boo xamante ni ci mission la nekk. Mm. ba muy def clip bi ak Aziz Dabala kenn xamutoon nii clip bi balaa muy génn Aziz Dabala ci biir suuf la koy far. dëgg la Demba Guissé di nga xamante ni am na ci dese bi ba mu amee moom dafa jël téléphone am ku ne mu lay woo parce que mënul woon gëm. Aziz Dabala effectivement dafa génn àdduna. Mm-hmm. mais nag dafa nekk ci mission gis nga ñi nga xamante ni sama doom. Mm. ñoom ñoo nekk fii di wax. dañoo comprendre ce qui se passe showbiz mm. gis nga Demba Guissé ba muy génne album boobu nga xamante son bi nga xamante ni moom la jël woyee ko waa Fuuta mm. woyee ko pël waaw comme pullo man mm. maay pël woye ko ni nga xamante ni moom mooy kii Aziz ñëw fecc ko ba mu xëy def xalaatul woon ni day fekk Aziz si biir suuf c'est un contrat boo xamante ni defoon nañ ko te man je trouve normal que mu dem génne ko mais ñi nga xamante ni nag ñu ngi wër ci ginnaaw di polémiquer naan Demba Guissé war a ko woon génne waroon bàyyi affaire bi non non c'est pas ça la vie. Mm-hmm. c'est pas ça la vie Aziz missionnaire la woon. Mm-hmm. missionnaire na si li nga xamante ni mooy ci clip boobu. fecc na ci def na ci lu nice boo xoolee clip bi da ngay xamante ni Aziz li mu si fecc macha allah. Mm-hmm. fecc bu rafet la. li ci triste kay mooy di xool image yi di ko gis muy fecc tey jëmm ji nekkatu fi. Mm-hmm. loolu mooy nekk li metti Sénégal. mu nekk lu récent. mais artistiquement ak dem Demba gise amul benn faute bu mu def. Mm-hmm. waaye nag àdduna nag bu demee ba toll fenn dafa am ñoo xamante ne dañuy profité ci circonstance mm-hmm. ah di jéem a wut ay loo xamante ne dañ ko ciy teg mais dem Demba Guissé tey jii du ma avocat am du ma koo xamante ne dama koy défendre mais dama wax ci digg ci showbiz parce que man mii di wax ak yow. balaa may nekk ci média dama daan way mhm. orchestre laa yoroon dama daan tëgg cinq fois six fois par semaine xam naa liy way xam naa liy orchestre. gé mhm. naa ci ay hôtel musique moo ma njëkk a voyagé loo. Mhm. musique laa xam man. moom mhm. laa def def def def def ba 2013 bi may dugg Walfadjri si laa commencé nag di wàññi. Mhm. musique te teewul ba léegi bàyyiwu ma. yenn saa yi ma toog ba mu yàgg rek sama guitare guitare woy ba doyal. parce que mi ngi ci man. damaa dem école des arts jàng ko. xam lépp showbiz nag boo ko xamul moo waral gars yi di wax nii di kërën kërën. coow li ci pind teen bi nag ñi amul paak. dëgg la. problème bi mooy Demba Guissé il bien fait. génn na vidéo bi mais dama naan benn affaire rek laay wax. vie yi mu am nii tey jii Aziz Dabala gën na koo indil ndaxte Aziz Dabala nekk na koo xamante ni mbiram dafa nekk loo xamante ni lu rëy la tey ci Sénégal donc lépp lu mu laalee ak lépp lu mu bokk rek gars yi dañ ciy bàyyi xel mm. donc Aziz Dabala aussi gën naa yokk li nga xamante ni mooy visibilité bi mm-hmm. gën na yokk li nga xamante ni mooy audience bi ci YouTube mais Demba Guissé képp ku ko wax dara yaa ngi koy tooñ mm-hmm. ndax Demba Guissé si logique am la ne lii dafa waroon génn filmé nañ ko ba pare heure génn bi jot na génn nañ ko jeex na tàkk. c'est un projet nañu ñaanal Aziz. Mm. mais Demba ci projet am la ne ci logique am la ne te nag ñii di wax ñii di saaga Demba chaque jour mi ngi gis commentaire yi mi ngi gis commentaire yi. moom réagir na sax waaw. Mm-hmm, wax na réagir na mm-hmm. mi ngi wax commentaire yi dem bañ ko invité mi ngi doon wax ci commentaire yeeg mm-hmm. wax ni mu gisee bagage yi mais mais moom ça le fait rire reetaan loo. parce que dañuy wan ne ñii maîtriser wu lu ñuy wax. Mm-hmm. parce que je suis pas d' accord téye chroniqueur de politique. Mm-hmm. ngay wax ci affaire culture. Mm-hmm. ngay chroniqueur sport. ngay wax ci <laughs> affaire li nga xamante ni moom mooy fait divers. ku nekk da ngay maîtriser li nga mën bu dee ceebu jën nga mën a lekk. toogal ci ceebu jën ba nga lekk ci bu dee supp kànja nga xam toogal ci supp kànja ba mais bëgg lekk ceebu jën bëgg lekk suppu kànja bëgg lekk supp boo demee douze kenn du la kenn du la mm. que da ngay da ngay jonk rek affaire yi génn mm. kon nag moo loolu moo waral gars yi tey ji maîtriser wuñ dañuy wax c'est ay waxaloog lañ. Sénégal y a des waxaloog. dañuy wax pour wax rek ils ne maîtrisent pas ce mm. gis nga njàng jàngaanoo soo soo jàngee soo mokkalee da ngay ber sa daara. gis nga tey jii ñi toog ci réseaux sociaux yëpp di wax. Euh, euh, euh, bu bëree ci wax rek kay wax dara. Mm. da koy wëri fu mu bëree ci wax kay wax ma ngay wëri li muy wax. Mm. nit li ngay wax dangay ngay koy maîtriser loo maîtriser wul bu ko wax. adduna bi loolu la mais dem Demba Guissé mi ngi dans son logique. mi ngi ci logique am. te nag seen chaîne bi Feeling Dakar fii la lépp di leeree man pas Ousmane Ba je ne suis pas l' avocat défenseur de Demba Guissé mais ñii di wax di critiquer Demba Guissé dañoo xàmmeewul guddi ak bëccëg. Mhm. mais Demba Guissé mi ngi ci logique am. ngi ci logique am d' loolu après ñun dinañ ko yaatal ak moom si kàttanu suñu borom. Mhm. Euh, mu mel ni ne aussi si kaw Nabou bi ñu si dañuy sàkku à ce que le procureur daal génn ne rek na ñëpp na képp dakkal euh, wax yi nga Euh, jéem a def li nga xamante ni moom mooy euh, mbir yi dina xam nu mu koy tegee si yoon maanaam ñu sàkku si procureur mu génn wax ak askan ne nañ noppi balaa daan di teg seen kaw ndax dossier la boo xamante ne sensible na ndax rek wàllum crime du ay foo te nit ñu ngi koy commencé di ko banaliser di ko fawee te nekk na loo xamante ne justice dafa war a euh, dañ dafa war def liggéeyam ngir ñu mën a leeral kat moo def li mel ak yeneen jëfin yi nga xamante ni ñu ngi koy gis jamono ji yow loolu ànd nga seen déet. ànd naa ci Sénégal dëkk wax la nag. Mm. gars yi moom fii c'est la démocratie. Mm. Mm. nañ bàyyi gars yi ñuy wax parce que loolu dafa mel ni. mais di wax lu dëgg. waaw mais dictature la côté boobu noonu bu kenn wax. loolu moom mën na ko waxee ci beneen façon. mais bu mu ni bu kenn wax. Mm-hmm. parce que des fois aussi géew bi looloo koy neexal. des fois ma critiquer gars yi. mais des fois nga toog gis ay ñoo xamante ni ñàkk ñu xam li ñuy wax. nga nga nga leen di seetaan ça fait rire. da lay reetaanloo parce que da ngay ni ñii. teg nañ seen plateau ñi toog ci plateau bi ñëpp kenn xamu ci dara mais ça fait hmm. toog nga xamante ni ñii ça fait rire mais procureur ni bu kenn waxati bu nit bu ñëpp noppee moom du baax hmm. il faut nit ñi des fois ñiy wax je les critique nag mais il faut aussi bu ñu parce que loolu bu amee rek dictature lay ne. mais si cas bi moo tax may wax. non dossier yàgg na fi am. Hmm. dossier Aziz Dabala. bi ah, mais loolu mosoon nañ ko fi am na benn dossier bi fi amoon si meurtre la woon mu ne nañ noppi kenn waxat si cas bi. ah man daal instant bi xam nga lan mooy sama sama problème procureur li ñu war a def mooy ñu accélérer la cadence. ñu bañ ko yemale comme dossier yi ñu fay téye ay 6 mois ay 7 mois ndax déglu dégg naa ay juriste. Hmm. boo moytul fii mois duñ ko jugé. wala fileeg euh, un an. deux ans la jëm wala ba deux ans. Hmm. dégg naa ñu koy wax man dégg naa ay juristes yu kawe yoo xamante ni si mbiru yoon la ñuy yëngu di wax loolu. Hmm. kon nag dañ leen di ñaan. ñu accélérer la cadence. Mhm. ci dossier bi accélérer la cadence bi nag mooy lan ñu teel a joxe li nga xamante ni mooy verdict bi ñu xam fan la wànnante di mujjee ki gëtam. loolu daal moom mooy la meilleure des solution ñu xam ndax ñii ñu jàpp dañ leen di daan. Mhm. parce que nee nañ juróom lañ am na koo xamante ni moo nee na moom moo rey moo ay façon tur yu ne yaa koy ci mhm. dossier am na keneen ku jigéen koo xamante ni euh, takkal nañ ko si te nee nañ léegi léegi léegi léegi dinañ ko jàpp dans une semaine xam nga ba mbër bu mag boobu nga xamante ni macha allah def na carrière am carrière bu rafet Bac Seras yaa ngi dégg ñu ko si cité mm. ah, mu nekk ay affaire yoo xamante ne dafa garaaw doomu nabu nekkatul à l'aise fu mu génn ñu koy kii te kenn xamu ko waaw kenn xamu ko woon léegi jël photom teg ko ci internet bi xale bu ndaw waaw waaw mm. xam nga yaayam aussi am problème yooyu yëpp ñu ngi koy commencé gis si senegal te Sénégal mooy dëkk boo xamante ne yaay jaangee la ñuy wax rak mm-hmm. jaangee rak jaangi ne eh, moo kay ñoo bokk koñ mm. ba ñuy bokk koñ nabu mbir mi dañ ciy taqe dëgg la moo tax nag il faut ñu gaaw a jeexal dossier bi bu dee nabu elle est elle n'est pas coupable ñu relaxé ko fekkee elle coupable aussi yoon def li nga xamante ni moom mooy yoon parce que nit moom bu la yoon toppee li nga xamante ni mooy ni logique rek naka yoon def ci yow. Mm-hmm. yoon moom moom moo fi ne te moo fi mës a ne idéal yu mi diini abada dañuy dundu ànd ak yoon dañuy dee bàyyi fi yoon. Mm-hmm. yoon boobu nag bu dee réellement ñoom ñi ñu accuser ñoo def. na yoon appliqué mm-hmm. mais bëgg noppiloo nit ñi moom dama naan loolu dafa diis trop parce que ay nit boo leen noppiloo te ci wax la ñuy liggéey day métti si ñoom trop waaw d' accord euh, ñu jeexalee côté Nabou Leye si euh, ñi nga xamante ni ñoom ñooy ay euh, sëriñ comme ñoom ni ñu tuddee noonu seen bopp di def ay ñaan ñu si bëri dañuy génn ñoo xamante ne mosuñu leen a gis sax dañuy def ay live si yenn chaînes yi naan ñoom Nabou Leye xam nañ ko di jox ay révélation si jëmm Nabou Leye naan Nabou Leye lii Aziz Dabala nangam ku si nekk di si joxe sa version ban am si kenn ka nga xam ne Nabou Leye ñëw ba si moom di ko def loo ay ñaan si euh, yenn mbir yi nga xamante ne sekkoon na ko ak Aziz Dabala tey jii nii bu ñu ba topp sëriñ yi di waa te yow ban commentaire nga si am. waaw secret professionnel dafa am. Mm-hmm. secret professionnel liggéey boo gis rek am na secret. dëgg la te nit ki nag boo demee ba xawi sa sutura. Mm-hmm. man dootuma la gëm. Mm-hmm. sëriñ boobu man bu man xam naa ko du ma fa yóbbu sama mbokk. du ma fa yóbbu sama xarit. du ma fa yóbbu kenn koo xamante ni di dem sax naan ko pe taawal ma mhm. parce que du ma ko def mhm. ndaxte dama naan kii fenkat la mhm. du katu dëgg parce que yow nit ki da ngay am secret professionnel man su ma feebaree ñëw fekk la nga toog yow ngay sëriñ man la dama da nga ma war a faj nga ne ma waaw mën naa la faj man la waaw faj ma nga laaj ma lan ak lan mooy sa problème ma wax la lii nga xamante ne mooy sama problème. Mhm. après ngay retourner derrière naan Pa Ousmane da ñëwoon na fi waaye Pa Ousmane bu muy ñëw de lii laa ko wax lii laa ko wax man dama lay ragal. mais day profiter la sëriñ yooyu nga xamante ni maa ngi koy wax nii sëriñ yooyu nga xamante ni ñoo ngi wër ci télé yi naan carrément. jot naa xam nabu wala wax naa ak nabu man de bu doon may pa Ousmane mii ak kama xam bu leen demati si ñooñu. Mm. ndaxte ñooñu amuñu secret professionnel. yaa ngi yàq seen business dama yàq seen mm. parce que liggéey boo gis dafa am secret professionnel. Mm-hmm. seen business laay kalaate. ñooñu ay wutkatu buzz lañ mm. dañuy bàyyi ba situation am naqar am malheur am ñuy langaamu ci malheur bi xam nga pour mën a am tur <laughs> dañuy langaamu ci malheur bi am nii pour mën a am tur uh-huh. waaye du fii la ñuy amee tur mm-hmm. parce que ñun nan nandite yi xam nañ leen bu baax a baax a baax gis nga gars yi fi mu nekk nii dañuy bëgg buzz rek mm. buzz la ñuy wër ñu ni di Diwa waxoon léegi Marème Ndiaye bi toog fële wala Kiné Fall bi nekk Amérique xool yi kii kay li mu wax dëgg la lijjantil ma numéro am woo ko te Serigne wax xoola ci suuf mm-hmm. xoolal si suuf ñu ngi bind 77. tel tel tel tel tel bind. ah dañuy commercialiser seen bopp waaw parce que ñoom dañuy commercialiser wu. Ah. léegi nag da ngay fen fen yooyu ngay fen pour jaay sa bopp mu ngay yàq deru jàmbur yow. Mm. foo ko teg loolu c'est pas du tout normal. am na ko ma ne Naboulaye bu génnee xam naa ne ñu bëri. dinañ leen loolu ñuy wax du dëgg. gis nga àdduna bi fii. nit mm. da nga koy suturaal. Mm-hmm. sutura bu demee ba jeex. du kii lan moo tax ñuy sol yére. pourquoi nga yeewu nga sol maillot de bain. Mm. si nit ñu mm-hmm. wax nga nga jël des fois euh, këfalu ñu wax na nga sol yére waaye nañoon bàyyi ñëpp génn seen kër sangu rek génn dox. Mm. ku nekk génn rek sangu rek bul sol dara. bul am yére bul am dara ñëpp génn loo di dox est que bu booboo du xumb lool ba. waaw day na waar. ba da ngay <laughs> waar wala. day na waar mais yére yi ñu sol pour lan la papa pour su suñu ay cër. donc nag loolu moo ñu suturaal. tey Pa Ousmane Ba ni mu toog nii rek bu nu woon dungu nii toog rek la lan ngay gis. <laughs> kon nag Pa Ousmane yére bii mu sol moo tax tey ngay jiin bi mu sol daal yi mu sol moo tax gisoo dara ci moom mhm. kon nag sutura dafa war a am ci lépp nit ki da ngay sa bopp mhm. boo demee nag ba suturaatoo sa bopp bàyyi lu la neex wax sëriñ si nga xamante ni ay jeunes lañu les jeunes marabu nekk daara ja jàng rek wàcce kaamil benn yoon rek nga ni xaaral mën naa bind aaya bi mën naa bind aaya bee rek commencé naan damay def lii buñ ñu buñ ñu rey buñ ñu nax gis nga fii ñun xam nañ lépp gars yi daara ja la ñuy dem wàcc benn yoon kaamil mm. mën a xaw a bind tuuti rek xaw a xam ñaari aaya ñetti aaya ñeenti aaya rek ñëw Dakar ndax Dakar dafa bëri nax dañuy dañ leen di nax buñ nee Dakar nag luwe seen benn néeg teg seen ngan di si jaara dem jënd kursu un mètre cinquante ñëw toog jël ay kaamil teg boo ñëwee ñu jël ay feutre yu bëri teg ak ay këyit yu beex yu weex ba table teg teg te saa waay xoolal na gaa yi mhm. gis nga fii am yàlla yàllaay buur dëgg la ñàkk yàlla yàllaay buur sëriñ see nga xamante ni ñu ngi toog di yàq deru nabu lay di wax si moom lu ñaaw ñooñu def ñuy fu gor liggéey boo gis dafa am secret professionnel mhm. secret professionnel bu demee nag ba ñàkk si am si sa liggéey man dootuma la wekk mhm. sëriñ boobu def loolu de ba ma bëggoon ngeen jël photom teg ko bu kenn demati ci moom parce que kooku. ku mu xamal weer bari na. ku wax ñëpp ku ñu xamal weer la. man de du leen seeti du ma leen nuyu du waxtaan ak ñoom ndax mm. ñii ku ñu xamal dañ lay weer. <laughs> jaajëfal naa la bu baax am euh, kontaan te àndaat ak yow euh, si waxtaan mi si tolluwaay réew mi si wàllum insécurité ak ainsi de suite euh, ma lay jaajëfal di am mbégte bu baax a baax a baax sama xol sedd na dina bàyyi nga tàggatoo. ak ban conseil ngay jox mm. askan wi. waaw maa ngi lay sant bu baax di wax mm. askan bi nag lii nii lii. mooy gémmiñ gémmiñ waaw gémmiñ mais boo koy xool dafa bëri loo xamante ni dafa ne ci ci boppam lu mm-hmm. bëri ay sant mm-hmm. waaw gars yi ne lan lañu ñu ni mooy gémmiñ mm-hmm. gémmiñ ci boppam après lii mooy ciiñ lii mooy bëñ lii mooy tuñ lii mooy làmmiñ boo xoolee yëpp iñ la sañ iñ gémmiñ ciiñ tuñ làmmiñ bëñ ñëpp mm-hmm. ñoo bokk benn sant. Mm-hmm. yàlla nag jël làmmiñ wutal ko ay défenseur yoo xamante ni yu bëri muy ciiñ mm-hmm. muy tuñ muy bëñ. dugal làmmiñ ca biir waaye làmmiñ lu baax moo ko baaxal. la lu bon moo ko bonal. kon nag booy wax xamal li ngay wax. booy jëf xamal li ngay jëf boo déggee nu diw dafa bëri xam-xam la mu xam a bëri. boo déggee ñu naan diw dafa bëri mën-mën la mu mën a bëri boo bëggee ñu naan diw dafa am am am hmm. la muy nangoo bëri hmm. am am ma ñëw ne la am nga ne ma am la am kenn la am ñu ni kat borom am am la hmm, parce que ñi lay wax am papa day ñëw ne la am pa Ousmane ñëw ni la am xam nga euh, kii Bamba Bamba Feeling Dakar ñëw ni la am Bijou ñëw ni la am ngoom Taalif ni la am ñu ni diw kat dafa bëri am am la ngay nangoo bëri moo tax ñu naan diw dafa am am am kon nag àdduna bi buñ si bëggee mucc booy wax xamal looy wax booy jëf xamal looy jëf te na nga moytu di dugg ci ay oto bokk bokk yii mm-hmm. di wax loo xamut débat bi lu mun ber bëri bëri bëri nit ñi xamoo leen bul wax boo duggee ci BRT bi coow li bëri bul wax boo duggee ci Tata coow li bëri bul wax boo duggee ci Njaga Njaay coow bëri bul wax xamal fi ngay waxee mm-hmm. xamal fi ngay jëfee ndax léegi àdduna bi dafa jaxasoo mm. te nit ñi kenn wóoratul mieux mm-hmm. vaut prévenir que guérir moytu daal moo gën ndax jamono bii ku fi moytu rek di nga mucc nañu maanu loolu daal mooy ay tënkam ndax noonu laa loolu rek laay dégg si li nga xamante ne moom mooy conseil bu mu jox euh, askan wi rawatina ñi nga xamante ne yéen ñu doon topp si suñu plateforme digitale bu Feeling Dakar kontaan naa bu baax àndaat ak yéen jaajëfal bu baax moom Ousmane si euh, acceptation bi nga xamante ne invitation bi daal dina koy yombal ba mu baax jaajëfal euh, papa Mbaye bu baax moom mu nekkoon si cadre cadrage bi dina jox rendez-vous feneen ak leneen ak keneen bu ko defee ñu daal di waxtaanee tolluwaay réew mi jërë jëf.